Sunugal 24 kan ci ñun moo nekk di xaru wala ana kan ci ñun moo nekk assassin bi di rey mbas mi ne xas ci mim réew dem sax ba mel ni lu as waa kër docteur gouvernement bi moom ne yàcc bàyyi ñàkk sunu bopp Covid 19 di wéy di gën di lore ci mim réew Sénégal mu mel ni nag matuwaay yi ñëpp a ni si yàcc. askan wi moom dem ba mel ni gëmatul li nga xam ne moo di coronavirus moom nag bés bu ne ñu dégg wala ñu gis ku coronavirus rey waaye suñu jëfin ak suñu waxin boo koy xool wala nga di ko dégg dafa mel ni ñun ñi gëmuñu benn yoon ci li nga xamante ni mooy coronavirus. virus la bu nga xamante ni bés bu ne mu ngi def fi jëyam waaye taxul ba léegi assassin yi di wéy di gën di bëri ci dëkk bi kan mooy assassin si ñun ndaw li nga xamante mu ngi nag mën a jànkuwanteeg boobu virus ndax kàttanam ak dooleem mën na ko tax mu jaayanteeg moom ba du ko lor waaye kookee mën nañ ko jàppee assassin respecté li nga xam ne mooy mesure barrière yi ba jël feebar boobee yóbbul ko maamam wala yaayam bi nga xam mën na caa loru kan si ñun tamit moo nekk di xaru mag mu ne leng xam ni kat coronavirus mën na koo gaañ te moom it sàmmawul ak déglay kër docteur ba feebar bi mën koo dugg am na ñaar ci askan wi ñu nga xamante ni tey bu doon dañu leen mën a jàppee comme ay criminel wala ñi nga xamante ni dañu nekk di def tentative de suicide tey tribunal war naa mën a atte ñu bëri ana nan la ñuy def ba génn ci kanaa ñu respecter mesure barrières yi waaye nag ku oddu jotul naka ngay booteb càkkaar loolu moom wolof njaay da koy laaj lu bëri askan wu nga xamante ni dañoo xiif sonn ñàkk te fi mu toll nii ba léegi kenn mosula dégg wala nga gis ne gouvernement bi jël na kat ay matuwaay ne sénégalais bu ne lu mu gàtt gàtt dinaa la jox benn masque ngir nga mën ko takk port masque bu nekkee obligation fii ci mim réew ndax obligation la ngir ñu sanctionné si kenn ku nga xamante ni takkul mask bi lu tax ba fi ñu toll ko ngir kat sénégalais yooyu mën a am masque yu doy ngir mën ko takk wala moom it dañ ko mën a boole ci loo bi nga xamante ni mooy asl100 yii di rey askanam mondak ci ndoddam moom moo waroon gàlloo lépp lu nga xamante ni mooy santé publique ak sécurité bépp doomu Sénégal ndax loolu moom ci waru garu état la waaye fi mu toll dafa mel ni dañu dem sax ñoom ba fàtte seen mission wala la leen fa yóbbu jiite aw askan wu xaw a dëgër bopp wala boog bu dul dégg ay waxu kilifam bu ñu demee nag bam réew tollu foofee ñu war a nag def ab taxaw seetlu bu yaatu réew mi nit ñee déggatul wala ñiy wax lañu ñu déglootul ab laaj la bu ñu mën a samp ndax kat mbas mi di coronavirus wane na ay feebar yu bëree bëri ci mim réew beneen feebar bu graaw bu nga xamante ni day rey ay junni junni nit ci fii ci Afrique donc mooy beneen virus bu nga xamante ni dañ koy nemmeeku si suñu njiit yi lii di troisième mandat wala boog bëgg di def ay mandat yu bëree bëree bëri Alassane Ouattara ginnaaw bi ñu xam ne moom dina def troisième mandat am fële ca Mali gars yi ñu ngi xaar euh, fële ca Guinée fii ci Sénégal it nit ñi di ko lam-lame ñuy ñaan sunu borom bëgg. boobee virus bu mu gën di infecté fii ci Afrique ndax saa ne gis nañu veyu élection yi ni muy demee. ba xaj bi matt Côte d'Ivoire du fonn senegal ñu bëree ngi koy njort ndax troisième mandat bi nga xamante ni ba léegi kii fi nekk waxagul ci waa waxagul ci déet. bala boobu ñu leen di maye di gët ba xam fan la ñu mujjeek askanu senegal dig daje beneen yoon ci yeneen ni ponk ñu leen di jàngal si la sunu gales fii ci sunu gal point Sunugal 24 point net l'information à sa juste valeur c'est ici même